ñoo ngi nuyu mbokk yi teew yëpp di ziyaara sunu kilifa yi fi teew di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, di am mbégte ci taxawaay yi lool muy taxawaay yi nga xam ni dafa mel ni eh, yoonu murit yëpp jamono bi ñu toll ñu ci ëpp wëlbatikuwaat nañ jëm ci xam-xam mu mel ni kon wëlbatiku jëm ci xam-xam la mu doon tekki mooy bu fekkoon ne ab guerre la diggante yoonu murit ak seytaane day mel ni ñi ngi koy bëgg a daaneel ndax Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu dafa waxoon ni wa min makaidi llacini ayda axzaahu baaqin li yudiimu fayda saddu lmuridina an ittaallumi dafa wax ne bokk na ci fexey seytaane yi yi mu koy fexeel te dañu di ko fexeel muy dox gu mu dox diggante murit yi ak sàkku xam-xam mu mel ni kon bu nu dëppee ñun ñëpp jëm ci sàkku ko bu fekkoon ni ab xeex la bu doxoon suñu diggante ak moom ñoo euh, ngi koy bëgg a daaneel ñoo ngi ñaan yàlla moo defal noo ci tawféex ba nu jëmale ko kanam ba li sëriñ bi namoon ci noonu lépp mu teg ci bëtam tey nu ñëw fii ci jàkka ji jàkka ju tedd ji dafi waxtaane tomb bu am solo mooy alal ban rôle la mën a joué ci defar dundu doomu aadama bu fekkee ne saytoo nañu ko nañu ko war a saytoo euh, mu doon thème boo xam ne lu am solo lañu di ko waxtaane ndax ku ne xam na ne doomu aadama suñu borom moo ko bind bëgg loo ko alal wa tuhibbuuna al maala hubban jamma loolu loolu euh, mbirum suñu borom la tabian doomu aadama mu mel ni li li ñuy faral di wax muy yonente bu ne yàlla yónni na ko fi ñii gëm ko ñee weddi ko waaye alal moom bu fekkoon ni ab yonente la moom dafa mel ni am na sens bu kenn weddiwu ko ñu baax ñi yëngatu ci diine Euh, am nañ ca ab cër ci nu ñu ko gëmee ña ca des ña yëngatu ci leneen nit noonu waaye ñun ñu nekk ci euh, loxo yoo xam ni muy loxo yi diine islaam lu mën a doon dañu war a dem laaj ko fu nu cee jaar mu wax nu ko ñu jéem faa jaar li fekk ne nañu sunu bopp ci ci ni ko noo ci say loxo rek kon yàlla na ci noonu lu mën a doon rek ñun ñu delluwaat ci moom laaj ko mu wax nu fa nu cay jaar doomu aadama sunu borom daf ko bind defal ko am xel bind ko defal ko ab xol bind ko defal ko lu ñuy tuddee ak ruux bind ko yit defal ko aw yaram ñett yi lu ci ne dafa am lum soxla ñu war ko caa suuxat xelum doomu aadama mooy liy jàpp di xam waaye nag jamono bu ne laaj na ñu di ko suuxate ndoxum xam-xam ci xam-xam lay di ko suuxate ndoxum xam waaye xol mooy li nekk ci doomu aadama bi di bëgg ak bañ di bëgg aka bañ ruu mbir la moo xam ni mooy tax xol a bëgg mbaa yi bañ mooy tax xel a jàpp mbaa muy bàyyi waaye ni mu bind ñaar yooyu ñu doon yu am solo ci nit ki nga xam ne bu ñuy wax nit sax ñaar yooyu tax ñuy wax muy xelam ak ruuxam ñaar yooyu ñooy xaqiiqa xam aadama waaye xaqiiqa boobu nag dafa mën mënta taxaw ci lu dul muy jafandu fenn muy ci aw yaram la mën a nekk jafandu ca waaye nit ki duñu ak ruuxu akum xel li ñuy am am am solo mënuñoo beru ne rek di jëf ci lu ñuy nekk ci biiru yaram te yaram woowu moom itam dafa soxla dundu dafa soxla lekk soxla naan soxla ak col te bi mu ko soxlaa du ko mën a am mukk ci lu dul alal alal jooju nag benn moom moom mii di ko jëfandikoo moo ko yëngatu wala mu sukkandiku ci alal jàmbur waaye alal ñooy tax nit a lekk alalee tax nit a naan alal mooy tax nit di solo kon ab tomb la ci dundub doomu aadama boo xam ne mënu koo ñàkk alal nit mënu koo ñàkk ndax ginnaaw mënta ñàkk naan mënta ñàkk lekk mënta ñàkk solo te bala mu ko mën a def dafa am alal kon alal farata la ci moom li nit yi yi wax ni lépp loo xam ni euh, bu amul la war a am du am kon loolu yi daa war a jëkk am ba mooy maa laa yatimul waajibu illa bihi fa waajib lépp loo xam ni bu amul la war a am du am loolee farata la ci yow loolu moo tax islaam ñett yooyu yépp la sonne ñett yépp dañ ko ñor ci doomu aadama bi day jël nit ci wàllu xel jël nit ci wàllu ruuxam jël nit ci wàllu yaram mosu ci woyofal dara dëgg la euh, diine jamono bu ne daf ni soññi ci dëddu àdduna waaye nag soññee dëddu àdduna tekkiwul wàcce àdduna soññee gëm nu soññi ci dëddu àdduna tekkiwul ne nu wàcc leen àdduna lam djublu lépp lépp ci soññee da do aduna moy dafa am ñaari kër muy aduna ak alakhirah mu xamal la ni la nga tan be na la be gënal ci bi bul jital bi ca be wala al akhiratu xayrul laka min al ula won la ni la ëlëk mo gën ci yow tay waye tekki wu nak ni la wàcca lépp définitif alquran moo nu dëdduloo àdduna moo ni falaa taxurrannakum alxayaatu dunya wala yaxurrannakum billahi alxarur alquran yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax nu ni adduna bu fekkoon ne dana peese fa yàlla luy toll ni laaf yoo kon ab yéefar du fi am guuxum ndox bu mu guux lu wax yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam nit ñëw ni ko dama bëggoon a xam nan laay def ba yàlla bëgg ma nit ñi bëgg ma mu ne ko dangay ngay dëddu adduna boo ko defee yàlla dina la bëgg nit ñi it boo dëddoo la ñu yor ñu bëgg la izhad fi dunya yuhibbaka allah wazhad fi ma inda annaasi yuhibbaka annaas kon kon loolu lépp ay alqur ay alquran la ak i xadis yu yonente bi salallahu alayhi wa sallam yoo xam ni dafay xiirtal nit ñi ci dëddu àdduna waaye nag dëddu ni ma ko waxee woon léegi tekkiwul wàccandiku wàcc lépp ba doo ci yëngutu ci dara ndax ku ko déggee noonu rek déggee ko ni mooy bañ yëngutu ci dara ci àdduna rek danga dem ba bis ñëw boo xam ne danga ca xamee ni ndeke lii ma déggoon wérut waaw ndax mbooloo ñëw nañu ci yonante bi ni ko ñun de gis nañu ni boroom alal yi ëpp nañu nu tawfiq yóbbu nañu yiw yëpp ndax ñi ngi julli ni nuy julle di woor ni nuy woore waaye nag di jàng alquran ni nu koy jàng waaye nag am nañu desiyete alal yu ñu mën a sarxe nun amunu ko yonente bi ni leen mën naa leen jox loo xam ni dana taxaw taxawaayu sarxe nga xam ne bu ñooña amee luñ sarxe yéen bu ngeen defee lii da ngeen mel ni ku sarxe ni leen subhanallah ju ngeen wax am ngeen ca yoolub ku sarxe alhamdulilahi ju ngeen wax am ngeen sa yoolu ko sarxe allahu akbar bi ngeen waxit am ngeen sa yoolu ko sarxe ba ñu ko jàppee ba ni kon am nañu suñ cëru bopp boo xam ne kenn du duñu ca fekk ñooñee amoon alal ndégg ko daal di koy fab di ko jëfandikoo ñu koy jëfandikoo ñu dellu ci yonente bi ni ko ñun kat la nga waxoon ñee amee alal dégg nañu ko ba ña ngi koy def nii nu koy defee ba noppi ci teewul ñu ngi continuer di sarxale ñu daal sarxe te ñun amuñu li ñu sarxe bi ne loolu yi nag nga neelu yàlla la loo xam ne mooy seet koo ko neex mu defal ko kon bëgguñu ku déggee mukk dëddu àdduna ni mooy nga wàcc àdduna ba doo ci yëngut am na koo xam ne si Abdou laa moo ko waxoon ne ko àdduna doo ko wàcc doo ko yanu mu ne ko kon nu ma koy def mu ne ko boo ko yanoo ba ñëpp seen la nga di ko jàng-jange dootoo ko mën a teg ci suuf te bu boobaa dana la jat àdduna boo ko yanoo mu jat mu ne ko waaw mu ne ko waaye boo ko wàccee mu alag la rek wàcc gi mooy bañ caa yëngatu ci dara da dem ba bëgg a faj soxla mu tëla mu ne ko kon ana nu ma koy def bu fekkee du ko du ko yànnal duma du ma ko wàcc du ko teg ci suuf mu ne ko danga koy taaw ngay taawu àdduna saa bu diisee nga teg ci suuf boo jëkkante ko jëlaat kon àdduna dafa am yoon wuñ bëgg ku ko téye waaye bëgguñ ku ko wàcc ndax nit mën sa ñàkk dund mënta ñàkk lekk mënta ñàkk naan mënta ñàkk sol te yooyu yëpp ci alal la mën a jaare kon alal farata la ci moom waaye nag ci li nu jàng ci histoire yonent bi sallallahu alayhi wa ko ci siira saxaaba danañ ci xame ni alal bu ñu ko saytoo nañu ko war a saytoo amul moroom ci lijjanti ab société ba mu tegu ci aw yoon amu ci moroom te loolu sax jëkk ñuy dem ci sire saaba saxaaba yi mbaa sire yonente bi jamono bii nu toll ku ne xam na ni bari na lu nit ñàkk loo xam ni ñàkki moyen moo ko ko teg nit dana yor lu am solo lu wëloori dana am ay xalaat yu baax mën naa dem sax boobu mën a bind ay téere yu bare bari yoo xam ne waroon naa mën a jariñ nit ñi waaye bu amut moyen bu mu ko tasaawee la mu doon xalaat lépp day mujj naax sax dara du ci jal mu mel ni it jafe-jafe alal ji ñu am amewuñ ko ci jafe-jafe ñàkk alal dëgg la sax eh, am na lu ëpp alal waaye nag lii suñu jafe-jafe du jafe ñàkk alal dëgg waaye liy jafe-jafe bi mooy nan la ñuy tasaaree alal jooju ci suñu biir saytu ko ba jëfandikoo ko nañ ko war a jëfandikoo ndax jamono bu ne damay jàmbat di wax ni lu tax corniche bii boo fa demee fekk mu fees dell ak nit am na ci ñooñ dañuy yor pikk ak peer xëy ba ngoon jot bëgg ku leen defloo dara képp duñ ko am ñu dellu ak seen loxo kese noonu ma jàmbat ko ay yoon ba nit ni ma ñooñee nag boo ko seetloo ñu ci ëpp bootul danañ am mbokk moo xam ne waroon na leen a mën a jàppale ñu jàll waaye liy jafe-jafe liy jafe-jafe ci ñi war a mën a jàppale it da day def ñaare fukki nit yow góor góorlu ba jubloo jàppale ba ba jub leen a jàppale lebal leen alal ni leen dem leen def nangam baa nga jël leen dugal leen ci sab liggéey bëgg ñu jàppale la ci liggéey bi lu ci ëpp juróom-ñett ña dañ lay war léegi muy jafe-jafe boo xam ni indiwaat na jafe-jafe mu mat di bàyyi xel lool di xool nu nuy xool ba jafe-jafe yooyu mën a wàññi ndax nit fekk na ma sama kër fan yi ni ma man jàng naa alxuraan ba mokkal ko jàng naa aslaf ci xam-xam ba yeewu ci waaye nag eh, jàng yit maçon ba man ko waaye ñàkk gu ma ñàkk lu ma def tax na fii ci dëkk bi fi laa jëkk euh, dugge ci ab force ngacc ngacc ko ci sama loxo ngir këram a jiital te xaw ma nu may def yooyu yëpp nag mu mel ni lu mat di lu ci la di ko xam di ko bàyyi xel lool di xool ba xam nu nuy xoole ba lijjantiwaale euh, lëj yooyu te sunu borom lan la bëgg ci alal ji mu joxe ndax dafa bëgg rek ku ci jot ni ko katiiw denc ko fenn kenn dootu ko teg bët déedéet bëggewu ko noonu ndax dafa wax ne kay laa yakuna duulatam bayna al agniyaai minkum moom dafay bañ alal ji e, di wëndeelu rek ci diggante ñi am alal te ña ñàkkoon seen yoon du ci nekk mu mel ni kon e, jamono bu ne war na ñuy bàyyi xel loolu kay laa yakuna duulatan baynal aghniyaa ko alal ji suñu borom bay bañ mu doon lu ñuy wëndeel rek ci suñu diggante ñi am rek moom ko ñi amul jamono bu ne ñuy gën di tuskare saa bu alal ji nekkee ci loxoy ñi am ña ñàkk jamono bu ne ñuy gën di ñàkk dana jur jafe-jafe yu rëy ci société bi ndax Euh, ci réew yu yi ñu tudde sous-développé ci la jafe-jafe meloon defaral di am nit koo xam mën naa denc fukki tonni ceeb dend ak koo xam ni benn benn kilo ceeb wala liibaru ceeb bu mu suur bu subaa képp amul loolu daanaka ci sunu réew yi la ëppee waaye réew yi jàll dëgg dëgg dëgg sax dañoo fexe dañuy la leen di la leen di gën a jàll la leen di gën a ñor mooy fexe ba nit ñi di jàll fexe ba nit ñi am luñ jàpp waaye mu mel ni euh, ñun àggagunu foofa li ñu gën a dund daal mooy nit mën naa ci fukki tonne ceeb nit den nag moom amul liibaru ceeb bu mu sóor bu ko defee nag bu boobaa euh, kooka dana ko nangoo jaamu moom itam mën naa am sax mu nangu njaam ka waaye loolu lu muy sabab ci dund bi dana sabab ak rëy ci borom koom waaye mën naa sabab ci ki ñàkk it ak bañ ko ak iñaane ko mu doon ñaari jikko yoo xam ni lu ci ne dafa yàq ab société muy rëy dafa yàq ab société waaye ki nga xam ni amut ba tax muy iñaan mbaa muy bañ kaa amit loolu ba tey euh, buñ ko toppee mën naa andi yàqu-yàqu yu rëy ci kanam ndax loolu mën naa andi explosion bu mel ni ba amoon ca France ay jamono ndax révolte bi ñuy wax ci France ay ñetti ni ak ñeent ñoo xam ni dañoo amut lu ñu jàpp ñoo toog wéet xalaat di nag léegi ñii ñii niñ doone ay patron di am lu leen neex ñii ñàkk amuñ dara ñii di liggéey ñii liggéey ñii nangam loolu war nañ ci war nañ ci sàkk pexe ñooñu bañ sàkkee pexe ba def révolte ba révolte ba dafa jur yeneen révolte jigéen ñi révolte liggéeykat yi révolte mujj diine ji ci boppam ñoo mujj rewalte dañoo mujj rewalteel diine ni jëmmi diine sax wérul léegi ñàkk googi ba mu amee ci ñennat ñennat yor am koom di ko doxe ba ñoo ñee sos ab rewalte dañoo mujj rewalte yooyu sos ay révolution yu bari yoo xam ne ci lañ mujj rewalte ci mbirum diine ni diine ci boppam sax lañ fi bëgg déjee sànni léegi ba France ba ñuy bàyyi diine ka fa représenté woon diine ja dañ ko yóbbu ba ca béréb bañ gënoon a war maal ca ca dëkk ba ñu ñu rende ko daal di nag jeex na bu nañ ñuy bàyyi xel ni alal saytu ko ni ñu ko war a saytoo lu am solo la ci defar nit ñi ñàkk koo saytu it li mën a yàq bari na ndax day yàq ba jëmmi diine jañ doon kapsi kapsi sax mën na ko yàq mën na ko dindi sànni ndax tubaab yi muy France boobu yi ñoom seen bañu diine foofu la tàmbale ci rewalte yoo xamante ni ay liggéeykat ñoo ko doon rewalte loolu di ma ta bàyyi xel jamono bu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni xaqiiqa boobu yi la xamoon loolu suñu borom wax ci alquran di ko bañ mu xamit doomu aadama ci lim mën a wéy loolu moo waral bi mu ñëwee Madina la ko jëkk a ñor mooy wàllu économie wala économie la jëkk lijjanti ndax mi euh, ngi ko tàmbulee ci muhaajiroona yi nga xam ne dañoo gàddaaye Màkka ñëw Madina te biñ ñëwee ndalewuñ dara ay fuqaraaw lañ léegi lam jëkk a lijjanti mooy nu ñu dunde ñoom nu ñu dunde te mooy benn muhaajir bu ne mu boole ko benn ansaari yu ni leen dee leen jàppalante kenn ku ne ci yéen lum am na ko bokk ak moroom ñu di ko doxe ba di ci nett li bokkoo bu yéeme sax ci Euh, lu saxaaba yi jàngale ci dund guñ dund alxuraan ndax abdurahman ibnu awf moom lañ boole woon ak ku ñuy wax saad ibnu rabi mu àgg ci ni ko wax abdurahman ni ko maa fi ëpp alal ci addu ci madina gi dama bëgg xaaj alal ji ci digg bi jox la genn wàll gi ngir jëfe ndigalu yonente ñaari soxna it laa am mën ngaa xool ci ñaar ñooñu koo ci bëgg rek ma wàcce ko nga takk waaye bi mu bëggee ngërëm bëggee jëfe ndigalul yonent bi ba wax ko loolu yëpp kii ñuy woo ci alal ji it dafa am dignité moom itam dignité ni ko yal na la yàlla defal barke ci sa alal defal la ko ci sa njaboot waaye nag damaa bëgg nga won ma yoon wi nga jaar ba am lii nga am rek won ma rek yoonu marché mu mel ni kon maanaam pour ñu saytu alal ni ñu ko war a saytoo ak dox ci nañ ca war a doxe fokk ñuy delluwaat rek ci diine ba mu yar nu ba defar nu ba noppi ñu doog a xam ne fu ñu jaar fokk moom mooy wone aw yoon ndax diine ni mu bëggee kuy sarxe noonu la bañ a ku yelwaan diine ni mu diglee sarxe noonu la tere yelwaan àgg na ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñëw laaj ko mu jox leen ñëwaat laaj ko mu jox leen bañ ko laajee yoon ñetteel dafa tàng ci seen kaw ni leen lépp lu ma am bu ñu ma leen ko jox waaye nag na xam ne jël ak buum dem ba ca àll ba taxane fa jël sa yu mat jaay ko la nga cay am jariñoo ko moo gën ci yow ngi wër di laaj nit moo xam jox nañu la moo xam joxuñu la kon ni mu diglee saraxe noonu la bañee laaj mu mel ni kon bokkale googee boole gam boole woon diggante muhaajiriin ak lansaar lansaar yi ci seen wàllu économie ñu jàppalante ci dund loolu jamono bu ne war nañ koy nafar ci di seet nu ñuy jàppalante ba nitñi jàmbat coono yu bari yu ci bari mën a wàññiku bi mu ñëwee madina la mu fa fekkoon moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy dafa fekkoon yahood yi occupé wàllu commerce am commerce moo fa nekkoon yahood yi ñoo ko occupé di jëflante ci riba riba mooy saa bu ma la lebalee téeméer boo jaaxle bu ñëw ci man leb ma téeméer ma ne la boo may fay téeméer juróom fukk nga may fay te amoo pexe ndax yaa ngi nekk ci digg na nawet dara ñoragut te li ñoroon daaw jeex na mënoo ñàkk loo dunde nga ñëw di leb kooka ni la téeméer bu ma la jox da nga tegal juróom pexe du am jëflante boobu lañ doon jëflante ak nit ñi te ñoo yoroon wàllu commerce bi des ñëpp ñii ay baykat lañ ñii dañuy sàmm ñii dañuy rëbb ñii di taxan taxan mat daanaka société bi jullit yi foofu leen yonent bi sallallahu alayhi wa fekkoon mooy daa fekk ñii di sàmm ñii di bay ñii di taxan ñii di rëbb waaye commerce mi ak alal ji dëgg-dëgg ci loxo yahood yi la nekkoon te yahood yi jëflante riba lañ daan jëflante ak ñoom mooy di leen teglu di diis te duñ ko sañ a bañ ndax nit ki bu amul lu mu dundee lam bayoon daaw jeex na te ren dara ñoragul mu ñëw di la lab si loo ko ca teg rek dana ko nam waaye loolu yonente bi dam jëkk lijjanti mooy lu mel noonu te ñooñu yoroon alal ji ëpp nit ñi alal man leen a lebal amuñ jikkoy diine amuñ benn jikko bu rafet buñ sukkandiku bu weesu seen sentiment yi bopp muy seen bëgg-bëgg yi bopp muy di jëflante ci riba di jëflante ci euh, di di di di tax nit ñi tax yu seer di jëflante ak nit ñi ci riche te mooy di leen nax jar di jëflante ak ñoom ci ay wor yu metti te duñ ko sañ a bañ mu mel ni kon yonent bi mu ñëwee li ko gën a itteel am na itte ju kawe ju ko ñor muy wàllu régler wàllu économie ci Madina mu jëkkoon ci ñaari mbir ba ci jëkk mooy li ñu tuddee al mawaridul iqtisadiya te mooy nit ñi lan lañu war a mën a jàpp pour jàll ci seen wàllum dund loolu daf ko ñor mu war koo jëkk lijjanti bu ko lijjantee ba noppi nag ba luñ jàpp am mu réglé jëmmi nit ki ba xam moom loolu lii mu ko jox nan la koy saytoo ñaari mbir muy léegi wane wane na ni économie wàllu économie euh, ab xaaj la ci diine boo xam ne mënta beru ndax diine ak jaamu yàlla bu ñu ko waxee bu suñu borom ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa yàlla boobu li ñu koy xaaj ñaari xaaj benn bu ñu moom la ñuy tuddee ibada sha'airiyya jaamu yàlla goo xam ni mooy julli ak woor ak jàng alquran ak sikkar ak yana demee te mooy jaamu yàlla goo xam ne diggante nit ki ak boroom képp ci la dox ñaareelu tomb jaamu yàlla mooy ibada taamuliya mooy jaamu yàlla ci jëflante gi ngay jëflante ak nit ñi te ñaari tomb tombi jaamu yàlla yooyu bi suñu borom ne wa aqimu salaa muy benn tomb bi mu fétewoo wa aatu zaka la ci teg tomb boobu mooy bi nga xam ni moo jëm ci si digganteeg doomu aadama yi ngay jëflante mu jàngal nit ñi ni leen économie ak jaamu yàlla la boo goo xam ni mën sa dañ ci diine la muy tekki mooy li ngay jaaye ka jënd ak di ko jëflante ci wàllu liggéey bul ci fen bul ci wax lu noona bul ci wor bul ci naxe bul ci exploité kenn bu ñu toll it ci nit ñi ittewoo ab dund yow nga ab ab am ab dund dégg ni prix yaa ngi waaj a seer nga téye ko bañ koy jaay nit ñi yëpp mu araamal araamal te it lu mat ca jàngat la jamono bi ñu toll muy jaamu yàlla yi jëflante yooyu ndax euh, day mel ni nit ngir mu am alal jamono bi ñu toll nii dañuy sakk bunt yépp ba mu des benn benn ba mu xool mooy bi suñu borom nanguwut te ca boobu képp ci la mën a jaar pour am alal loolu yëpp kon jamono gi ñu toll lu mat jàngat la ndax yahood yi ñoo fi nekkoon jamono boobee daan jëflante ci jëflante ak riba yahood yi ba fii nu toll économie adduna bi ci seen loxo la nekk banque boo fi gis rek ñoom ñoo ko kere te nañuy jëflante ak nit ñi jëflante boobee ñu daan jëflante ak nit ñi ca Madina te yonte bi doon ko bañ alxuraan ñëw di ko tere muy muamala rabawiya banque yëpp ci la nekk ba ci banque yi ñu tudde banque islamique sax dañoo xaw a gag ndax méthode bu ne rëdd nañ ko pour seet nu ñuy jaare pour mën a nit ki bu bëggee leb mën a dem ba noppi njariñ mën a delsi ci moom njariñ mën a dellu ca kee te doon riba waaye ba léegi nii amaguñ ci bunt bu leer naññ naññ naññ boo xam ni danañ ci mën a jaar kon loolu wàllu économie ci diine lu mat di waxtaane la di ko bàyyi xel ni xool ba xam lu ñuy defaat ngir saytu suñu diine kon la mu daan bañ ba tey muy fen ak wor ci wàllu liggéey muy liggéey nga marque sàngam waaye nag boo obligé wul def ci beneen marque buy tekki ni original la bootul lu jar am na benn commerçant bu ma nettali boo xam ne dafa dem Chine léegi ñu di ko laaj ne ko sénégalais yi ndax ay jullit lañ nee na ma ne ko lu tax ngay laaj loolu sénégalais yi ay jullit pire lañ nee na ne ko damaa gis ay nit danañ jóge France ñee jóge Angleterre ñee jóge Allemagne waaye ku ci ñëw boo may liggéeyaloo nangam loo xamante ni 10 la danga ma ciy def loo marqué 10 liggéeyloo ma loo xam ne set la defaloo ma ci marqué sept ñii liggéeyloo ma cinq defaloo ma ci marqué cinq sénégalais yi ñooy ñëw liggéeyloo ma loo xam ne cinq la ni ma defal ma ci marqué dix marqué dix ma ko dix ko moo tax may laaj ba xam ndax ñoom ay jullit lañu wala loolu mooy li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwoon ngir di ko xeex tollu naa nag ñun bu ñuy misaal fi mu toll nii mënuñoo misaal lu dul ni riche mooy ngay jaay meew fab ndox njar ko ca wala ñu misaale ko ni mooy ngay jaay lem fab tuuti lem ndox jar ko ci mbaa ngay jaay kafe dem dëbbu pepp jaxase ko ca mu doon kafe pepp te nit ñi duñ ko mën a xamal waaye nag loolu lépp riche la yonente bi dafa wax ne man rassana fa laysa minna léegi ak yu deme noonu yépp nag ixtikaar mu daan ko bañ lool te mooy nit ñi toll ci soxla dund bi yow nga yor dund bi di xaar période bu cher ba tax doo ko nangoo jaay kon diine ci ñett yépp la yëngatu muy ñetti euh, éléments yi composé doomu aadama lu ci ne da wax lu leer muy nit ki danañu ko jàngal xam-xam ngir am xelam mën a dund danañu ko jàngal nu ñuy jaamoo yàlla ngir ak ruuxam mën a dund waaye noonu lañ war a xoole wàllu économie am lijjanti ko ba nga xam ni dana mën a ànd ak ñaar yee kon diine ci ñett yépp la sonne alquran bi mu nuy tudd dafa tudd xeetu yonente bi ummatan wasatan ummatan wasatan wa kadalika jaalnaakum ummatan wasata dama leen def ngeen doon xeet wu digg doomu mu bëgg kon ak digg doomu ci xeet wi jamono bu ne digg doomu buñ koy xool ci wàllu économie mooy li suñu borom wax ci alxuraan ni wala tajal yadaka maglulatan ila unuqik waaye nag wala tabsutha kullal bast suñu boroom dafa bëgg digg doom moom la ñu jàngal ci alxuraan dafa bañ nga mel ni dañoo boole sa ñaari loxo njoñ ko ci sa gannaaw loolu kinaa yàlla ci nay gu ëpp waaw nay gu ëpp ni kat yiw ci li nga yor nga xam ni benn dërëm du génn am na ñoo xam ni sënu nay àgg na ci asaka sax duñu ko génnee te asaka lu néew la ci lu suñ borom laaj laaj laaj na ki ci alalam te ginnaaw bu mu ko laajee asaka ba noppi daf koo joxañaat yeneen joxañ buntu yu mu war a jàppalante ak nit ñi ngir dundit mën a tegu ci aw yoon waaye suñ borom nenu bu leen fab seen loxo mel ni dañ ko njooñ ci seeni ginnaaw ci ak nay waaye nag wala tab sutaha kullal basti loolu it kinaaya la ci pasar pasar maanaam bëggul ku nay waaye bëggul yit nag ku pasar pasar yi mooy wala tabdira kon dépense bi suñ borom waral ci nit ki ci alal ju mën a doon bu ko xoolee ku ne mën na ko te it jullit yi bu fekkoon ni jëfandikoo nañ ko ni ñu ko war a jëfandikoo li leen suñu borom digal ci wàllu jàppaleen ci wàllu économie buñ ko ni jëfe woon euh, mboolem analyse yi nee nañ buñ ñu ko ni jëfandikoo woon benn jullit bu doon ak faqiir du am ci àdduna jullit yi un milliard et quelque waaye bi xoolee liñ moom ci alal bu fekkoon ne li ñu war a génnee génne nañ jullit bu doon faqiir doo ko gis loolu ñuy analyse ci wàllu économie gis nañu ko ndax suñu borom lim laaj nit ki ci alalam jamono bu ne mën na ko ndax danaan la boo bayee boo amee fukki barigo fabal benn barigo ba joxe xanaa dëkk bi bu kenn ku ne góorgóorlu ñun ñëpp ñu jéem bay kenn bañ a wàccandi ko nga xam ne ka amut yàllaa ko nattu waaye mi ngi doon jéem kem kàtt na bu kenn ku ne génnee aslëf ci li nga yor jox ko dana mel ni ku bayoon comme ñëpp waaye nag moom itam bu mu wàccandiku dañ ko tere mu wàccandiku di xaar sarax yooyu diine ni mu digle joxe noonu la bañ a kuy laaj kuy xaarub sarax diine bu demee ca sàmm ya danaan leen ku ci am ñeent fukki gàtt benn laa la ci laaj ak mu ne bu fekkee sàmm bu ne ngi jéem a góorgóorlu kem kàttanam ka ca am ñeent fukki ñu laaj ko benn benn boobu du ko yëg te bu ñu ko dajalee ña am jafe-jafe ba mënuñoo jàll loolu yi dana leen mën a jàllale ba ñu am lu ñu jàpp ñoom itam bu dee alal bu dee xaalis wala wurus un million boo yor diine juróomi junni lañ soxla ci yow par at ay million bi bu fekkee am nga ko wala denc ko at juróomi junni yi képp la soxla ci yow te loolu xanaa war naa mën a woyof tooy te loolu bu ku ne góorgóorloo na leen ko suñu borom di na leen ko diine digale ba ki war a génnee génnee buñ xoolee ñañ ko war a jox ñu jox leen ko ñooñu danañ daal di mën a taxaw taxawaay boo xam ni danañ xaw a dab dabaatal si ñii leen koy jox mu mel ni bi mu fabee alal joji nga xam ni day farata mu farataal ko ci nit ku ne jamono bu ne mu seet ci lu yanu max naa loo xam ni nit ku ne mën na ko mu sàkk ko ci ñoom kon lu aju ci sarax bi mu ko diglee dañuy fab sarax bi xiyaas ko ci loolu yi mënu digal ci wàllu asaka buñ ko ci xiyaas duma la ne fukk yoo am génneel benn ba mbaa maa mbaa ñaar téeméer yoo am waaye dama lay wax ni la del génnee cinq pour cent bul génnee sax dix pour cent léegi xoolal li nga am li ngay am ci weer bi nga xaaj ko fukki xaaj fukkeelu xaaj ba nga xaaj nga xaaj ko benn xaaj seet noo ko dugale ci ab sarax teg ko ne rek pour jublu koo dimbalee say mbokk ak jublu koo sarax xoolal li nga am ci weer wi nga xaaj ko fukki xaaj fukkeel bi sax duñ la ko laaj waaye jëlal benn xaaj bi nga xaaj ko teg ko ne ngir di ci xaar lu mel noonu noonu yi rek bu ñu buñ ñu ko ni doxale woon ragal naa ni lu bari mën naa lijjanti ko ci jafe-jafe yi économie yi ñuy dund te boole ci yonente bi sallallahu alayhi wa wax ni sarax du wàññi mukk alal du wàññi alal loolu ni ko mën a misaale yow sarax bi nga waroon a génne génne mën naa am mu toll ci nga am junni ni ko kat yow de du ci génne dana ndax léegi fukki dana ñu ma ci saraxe nangam nangam waaye ordonnance mooy jóge fële ci kaw dikk ni fuuf junni ba lépp loola beneen junni dolli ko ci léegi te fekk ne mën naa am fukk yooyu seen ba mu ñu la ci saraxeloo boo ko saraxoon dana la aar ba lii du agsi dana la aar ba lii du agsi noonu lu yonent bi sallallahu moo wax ne dee leen saafara dee leen faj seeni tawat dee leen ko faje sarax sarax di génnee sarax waaye nag noonu mu diglee sarax yët noonu la tegee nit ki ci ab ligne ba bëggul sax nga jël li nga am sarxe ko ba sax njabot dul fi bàyyil dara ndax ben sahabi bu ñu wax sa'd ibn abi waqas mi ngi net li ci euh, mu wax ni at mi yonante di ñewoon di aj euh, hajjatul wadaa sa'd ibn abi waqas dafa ñew ni yonante bi man kat dama tawat ba amatuma yaakaar ci sama bopp tayit ku bari alal laa ta doom bu jigen kep la am buma wara ndax du ma mën a xaaj alal ji ma yor ci digg bi sarxe genn wàll nee na yonente bi ne ko loolu ëpp naa def xaaj li nga yor ci digg bi di sarxe genn wàll gi mu ni ko kon teem a xaaj eh, ñaari xaaj dañu ko sax dama bëgg a xaaj alal ji ñetti xaaj ñaari xaaj yépp ma sarxe ko bàyyi fi benn bi yonente bi ne ko loolu ëpp naa xalaat mu ni ko kon teem koo xaaj ci digg bi sarxe genn wàll gi bàyyi fi genn wàll mu ni ko loolu ëpp naa def mu ne ko kon teem koo xaaj ñetti xaaj sarxe benn bi te ñaar yi ma bàyyi ko fi mu ni ko sulus bi sax bari ni ko xanaa xamoo ni sag njaboot nga bàyyi leen ñu am luñ jàpp moo gën nga bàyyi leen fi ñuy wër di yalwaan nit ñi ni ko xanaa xamoo ni lépp loo fab dépensé ko te yàlla képp sax ba nga koy dépensé ba ci tib bi ngay def ci sa gémmiñu soxna sax suñu borom dana la ci fay aw yiw kon ñu xamee ci ni sarxe dina digle na ko waaye tekkiwul ni daf laa teg loo mënut boo bëggee tegoo loo mënut sax mooy moom mooy jëkk ñoo tegi la ko kon nag la mu xool ba teg la ko mu doon loo man bu wér a wér a góor-góorlu ci sa kem kàttan baax na ci loolu te nit ñi dañuy fab aaya laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusaha di ko firee nu mu leen neexee mooy léegi daal loolu mënu ma ko yàlla yàlla teewul kenn lu mënut waaye fekk ne yàlla teewul kenn lu mën la muy tekki mooy ña ña nga am mu laaj la ci juróomi junni xam ne mën nga ko bi mu la ko daan teg kon lépp lu la teg rek noonu la dem waaye bokk na ci li tax nit mën a saytu économie boppam ba mën a saytuwaale yeneen économie yëpp mu bàyyi xel bor moytu ay bor ndax bor bokk na ci li nga xam ne day njoñ nit ki ba dootu tale ci dara waxuma li tale tal li tal lu mu dimbalee nit li li mu dimbalee kenn yonente bi muslu woon na ci noteelu bor auzu bika min galabati dayni wa qahri rijal te bor bu woyofoon sun borom dina ko jéggal ki dee ci xare te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ni bépp bàkkaar sun borom dana ko jéggale ba mu des bor bor moom yaa kan ko seqaloon yéen ko seq waaye suñu borom du ko jéggal kenn kon loolu ba tey nit ki bu bëggee saytu ab dundam bëgg a saytuwaale ñeneen fokk mu bàyyi xel di moytu bor ligne bi nga xam ne ba tey borom xam-xam bi dañ ko rëdd di ci teg nit ki pour mu mën a économie mën a sàmm économie boppam mën a sàmmaale ñeneen mooy ngay xool li ngay am nga fab genn wàll nga dépensé ko la ca des nga denc ko ngir waajale ko bis bu agsee ko ndax adduna su borom moo ko tërale muy neex tey boo liggéey mu naqari kon loolu dañuy bëgg nit ki mu am yëg gu toll ni bis bi muy neex mu bàyyi waale xel bis bi muy naqari loolu dañuy bëgg nit ki di ko bàyyi xel naka noonu dañu lay euh, conseil ñoom woo boroom xam-xam yi nga xam dañoo jëm ci yëngutu ci wàllu économie ne la ba tey boo demee ba sa bakkan puus la ci jënd dara lu bokkutoon ci sa programme bi nga programme woon ci weer loolee nga war a jënd na nga ko waajal une semaine mbaa nga waajal ko un mois ndax bakkan moo xale ñu yem lu mu bëgg lu ne day bëgg daal mu daal di am ca saas te boo ko waajalee une semaine mbaa nga waajal ko un mois mën naa am xelam génn ci mën naa am sax nga gis ni ñorut kon loolu bokk na ci li ñu lay jëmbalee pour mën a saytu sa wàllu économie la ci des mooy weer wu ne nga xool li nga ci war a dépensé nga di ko programme programme bi ne weer wi nangam bii moo ci sama dépense ba noppi nag teg ko na teg ko à loolu ba tey bokk na ci lii dimbale nit ki ci nu muy saytoo alalam ak nu muy dimbalee nit ba mën a saytu alalam la des mooy nga yemale say bëgg-bëgg ndax bu fekkee ni foo sémbu dara ba ak nga sémbu leneen dana mujj dootoo tala dimbale kenn te nit ki sunu borom li ko gën a ñor mooy nit ki bàyyi xel ëllëgam bàyyi xel ëllëgam waaye boo sembee lii terrasse bi moom bu àggee moom dana baax ba mu àggee nga sémbu weneen étage ci kaw ni ndax gan ñi dañuy bari moo tax kii moom bii moom naa ko àggale moo ko àggale dina baax bu ngeen waaye baax ba mu àggee ngeen ne Dakar dal ci këri jàmbur yi ndax dafay xat léegi fokk jéemawul kër gu Dakar moom dana ci baax nag loolu ku ko topp jëmbulee si kenn jëmbulee ko sàkku ci asalaam loolu tax moo tax yooyu lu mat di bàyyi xel la ngir mën a saytu suñu diine dañ lay conseil ni la marché ba boo ciy dugg da fexe ba wut liste li nga bëgg a jënd nga xam ne ci kër gi nga koy xalaatee ba bind ko ba noppi bu ko defee boo demee leneen luñ mën a xoymet ci sa bët nga bañ ko jënd léegi ndax fekk na nga bind ab liste ba noppi loolu lépp nii day dimbale nit ki ci wàllu économie bi suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee nag ne al ulamaa warasatul ambiyaa yi mooy ni boroom xam-xam yi ñoo wuutu yonente yi mel ni kon damay wax ni sëriñ si ñoo fi taxaw taxaw ay yonente yi kon sëriñ si wax na ñuy bàyyi xel ñetti mbir yooyu yi nga xamante ne moom dañu wuutoo yonente bi muy dunduk ruug nit ki ci jaamu yàlla di ko soñ ci jaamu yàlla waaye nag nga bàyyi dunduk xelam te mooy sos ay jàngukaay yoo xam ne waxuma sax ñu jàngal leen alxuraan ñu mokkal ko rek di ko tajwid waaye ñu xam la alxuraan di tekki muy dund xel mu desit wàllu économie bi ñu bañ leen a bàyyi rek ci seen pexe bopp ak seen test si bopp ginnaaw bu ñu fabee mbir yépp jébbal nu ko dinu bàyyi xel ñuy tam ñu di leen bàyyi xel ci ñett yooyu yépp ngir ñu mën a wóotu yonente bi sallallahu alayhi ci dëgg-dëgg yi ak wóotu kon bu ma waxee sëriñ si jàppale talibé yi ci wàllu économie jubluwuma ne na ci talibé yi nañ fonctionné alal di ko joxe léegi ñeneen ñëw ngir jël si ku nga jox leen ko loolu tegul ci yoon sëriñ sëriñ Saliou ci ay jamono dafa jënd ceeb bu bari ba dongo yi di waxtaane naan sëñ bi dafa wax ne daa bëgg dongo yi di dundee lu mel ni li nit ñi dundee ngir dem bu bari bi mën a wàññi bañ ko analyse noonu mel ba ñëwee ba toog ak moom ni ko dong yi di ñu ngi sant bu baax a baax ci ceeb bii nga jënd mu ni ma sàllaaw de teguma ko ci bakkan ak dara waaye da di e, mbay mi ñuy bay asaka ji su ma ko jëloon di leen ko jox mën naa am ñii jot ci ñee duñ ci jot tam wóor ma ne su ma ko jëndee ab ceeb dana leen bégloo te sëriñ bi daana fa asaka yi ñii tarbiyawu di leen ko dundale te moom lépp lu mu def ci yoon wi aw yoon la ca ni ma lii képp laa jublu muy asaka ji laa xam noonu ngir di leen ko dundale moom laa jëlee ceeb noonu daal ne lii seen morom taalibe yi indi ma di ko fabaat di leen ko dundalee sama xel da ko nanguwut nga xam da di bëggal lu leen dew doom mooy li ñuy liggéey dañ koy liggéey ngir jëm Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa bañ koy liggéey dana xool moom fa mu koy dugal ci loo xamante ne njëriñul jullit yi la waaye nag ñoom seenu ñaq buñ ko bu bu mu naax nañ fab asaka ji dundal leen ko seen moroomi talibe yee dem ci liggéey yi lañ andi ñu teg ko fi dugalal leen ko fañ dugal seen liggéey bee loolu mu gante waaye nag bu waxee ne ñu jàppale ci wàllu économie la ma jublu mooy lañu sosee kon ay kër yu rafet yu bare bari yu amatu yobukaay ñu di ko sose ay liggéeyukaay donte ñaari place la xam ni dana mën a jël ñaari nit ba ñetti nit ñuy liggéey loolu dimbalee économie réew mi la dimbalee économie nekk ci suñu ginnaaw lay tekki waaye tekkiwul sax fab xaalis di ko joxe ndax fab xaalis di ko joxe moom ku ci dugg yi doo jàll moo tax euh, sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma euh, dafa amoon xalaat yu gudd ci fànn kooku may wax noonu ndax moom moo jëkk a xalaat ni Touba chômage bi dafa bari muy taxawaalukat yi amul luñ jàpp dafa bari moo doon lijjanti ci benn projet boo xam ni projet vingt cinq milliards la ci niñ ko waxee ngir bëggoon a liggéey ay usine ci Touba ak li ko wër ngir bëgg a wàññi limu ñiy toog loxo yi neen kon loolu ba tey eh, lu ñu war di bàyyi ci suñ xel la bàyyi xel ni ni ñu war a dundalee eh, jëmbalee nit ñi ci seen wàllug ruu mooy di leen digal jaamu yàlla tabax jàkk di leen ci soñ noonu lañ leen di jëmbalee ci seen wàllug xel te di yokk xam-xam bi jamono bu ne li fi am ci xam-xam ñu saytu ko la amagutoon ñu jëggaani ko indi naka noonu ñu di leen jàppale ci seen wàllug dund te mooy di seet liggéeyukaay yoo xam ni dana mën a jël mbooloo ba dana mujj taxawalkat yi ci mbedd mi mën a wàññiku loolu lu mat di bàyyi xel la muy continuer projet yooyu kon bu nuy tënk li ñu wax dama koy tënk ci ay baat yu néew mooy ba ci jëkk mooy fokk ñu jóg xool li ñuy tuddee mawaari iqtisaadi yi te mooy euh, Euh, buntu yi mën a génnee alal pour nit ñi mën a am luñ jàpp fokk ñu sàkkaat ci pexe bàyyiwaat ko xel la ca jëkk mooy jëmmi doomu aadama bi doomu aadama mooy kii gën a rëy ci ku ñuy bu ñu tàmbalee di yëngu ci wàllu économie moom la ñu war a jëkk lijjanti ba noppi ndax nit ki mën naa am alal ju bari waaye du am xam-xam bu mu ko saytoo kon fokk ñu jàppale nit ñi ci jàpp ba ba ba ba loolu ñu mën koo saytu defar nit ba mën a saytu alal maa bu mënta saytu alal it ñu defar ko ba mu yor jikko ju rafet joo xam ni buñ ko saytu loo alal mu mën ko saytu ñaar yooyu rek fi nekk ndax kii day am alal du am xam-xam bu mu ko saytoo kii am na alal bëgg borom doole bu ko dimbale borom doole boobee jikko yi baaxul ba buñ ko ko dénkee mu yàq ko dem léegi loolu kon defar nit ñi ba ñu amee alal am xam nañu ko saytoo defar nit ñi ba buñ amul alal ba borom alal jël leen di leen saytuloo alal ñu am ci ak maandu te lu toll ni duñ yàq alal di jàmbur tomb bu am solo la boo xam ne dañ ko war a jàngal ba tey li ci ci ñaareel bi ci li nu gën a ñor ci soñña bi mooy bàyyi xel loolu yi muy loolu yi ma waxoon ni euh, Sëriñ Cheikh Mbacke doon na ko xalaat muy ay projet yoo xam ni day tax nit ñi am lu ñu jàpp ba soomal bi wàññi loolu ba tey lu mat di bàyyi xel la ci ko suñu borom defal ndimbal moo xam ci wàllu xel la moo xam ci wàllu xam-xam la wala ci wàllu alal ba ngay taxawal dara ginnaaw bu ñu defaree nit ki ba noppi nag jàngal ko it nu muy téye bopp alalam jàngal ko nu muy fexe ba am alal ñu jàngal ko nu mu koy téye nu muy téye alal ji ba du ko pasar pasare du ko yàq loolu kon mooy liñ jubloo tënk ci euh, tomb yi ñu doon wax ma jàpp ni saa bu ñu ko doxalee noonu nii muy ñetti tomb yooyu ñu jël ko defar nit ki ci wàllu xelam defar nit ki ci wàllu jaamu yàlla ba mu amul ragal yàlla ba ba ba lu bari du ko ñeme ñu wut nag ay liggéeyukaay ak nu ñu leen puuse ñu liggéey ñu won leen ligne ba ñuy jaar ba duñu yàq lañuy liggéey bu ñu ko defee loolu mën naa indi ak defar gu rëy ci société bi ñuy dund ndax bu ñu amee société boo xam ne duñ jëflante ci riba am société boo xam ni wor day dañ ci ñoom boo ñëwee ni leen lii marque sàngam laa ci bëgg ñu wan la lay jar fukk wan lay jar juróom wan la lay jar ñeenti dërëm te duñ la won mukk lay jar ñaar dërëm ne ñaar fukk lay jar bu ñu demoon ba am nit ku mel noonu kon bu boobaa danañu àgg ci jamono ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax nee woon na danañ dem ba jëmmi jamono nit dana yor ab sarax di wër kum ko jox du ko am mën naa gis nit sax di ko ko jox kooka ne ko démb de ba mu ko joxoon ma soxla ko waaye tey mu soxla ko te loolu lépp la ko mën a maye mooy ci ligne bii munu rëdd la walaw anna ahlal quran amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min asamaai wal ard su borom dafa saxal ci alquran ni nit ñi bu ñu amoon ak ragal yàlla li mu leen di digal ñu di ko jéem a def seen kem kàttan la mu leen di waaye nag digal yi nun dañ koo gàttal ci jàpp ni mooy julli woor ak jàng alxuraan ak yónni waaye fekk ndigal yi ba ci commerce moom yi sax nga jàpp ni lii boo ko defee da ngay perte boo ci xoolee ndigalu yàlla boo ci jaaree perte moom du ci am mukk ci moo ko garante te dafa xam-xam bu woy ni juróom benn mbir dana sabab wërsëg ci alxuraan te yépp sax ci alxuraan asbaabu risqi sittatul muhaqqaqa تقل توكل صلاة صدقة كذاك الاستغفار والتحرك والكل في القرآن جاء مدرك لكننا لجهلنا لم نعمل إلا بما يتعبنا من عمل موحني لي سبق وسك جروم بين مير يوخم يبقى صحنا وسخنا القرآن باتي ديك موي توقا موني سون بروم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب tawakkul mu ni sunu borom moo ni wa man yatawakkal ala fa huwa xasbu képp ku sukkandiku ci sunu borom sunu borom dana la doy salaatun mu ni julli bokk na ci liy sabab wërsëg sunu borom moo ni waamur ahlaka bisalaati wastabir alayha laa nasaluka risqan nahnu narsuquk kon nit julli nga fonk ko di ko fonkloo sa njaboot bokk na ba tey ci liy sabab wërsëg صدقة مي صرخة سنبرا مواني وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الراسخين لب كل وجه رك دنا لك ووتلا كذا كالاستخار جعلوا سنبرم جعلوا دفع دفع من سال غوسك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ولسنبرم كوخ والتحرك نك مو جرم بينال mu wax ni famshu fii manaakibiha wa kulu min rizqihi mooy jóg di sàkku jóg di sàkk pexe mooy juróom-benneelu liy sabab wërsëg mu ni waaye nag sunu réer moo tax nun li nuy sonal rek lañ jàpp ni moom képp moo mën a may wërsëg loolu seex mal ay nay ni mi doon mag wu seex Sadibou moo ko wax te it lu mat di bàyyi xel la muy wàllu économie ndax lépp société boo xam ni wàllu seen wàllu économie xam ñuru leen xam-xam ñoru leen société buy toppee képp lañuy doon ba faw waaye duñ jàll mukk ci àdduna te it lii am mooy li Saalih ibnu Abdul Xudus wax muy ñaar rekk a fi nekk man naasu illaa aamilaani fa aamilun qad maata min atashin wa aaxaru yaqiqu mu ne ñaar yi rekk nekk nit ñi ñaar lañu kii dafa màndi ba lab kii aw mar a loolu bu ñu xoolee ci société yi moo ci yaatu lool ñaari nit ñooñu muy kéemaan ni ba lab muy am lu la ëpp lool ba giijal ba xamoo ñoo koy def ak koo xam ni euh, noonu nga amee lu la ëpp rek noonu la manqué lu mu jàpp moom kon bu ñu saytoo nit koo kii xool wàllug xel wàllug ruu wàllug yaramam xool ni ñu koy saytoo ci wàllug alalam kon rôle bokk na ci rôle yi nga xamante ne alal dana ko jouer man koo defar muy dana tabax nit tabax nit ku baax ku mën a lijjan ci àdduna ndax bari na ci eh, africains yi tardement boo xam ni la leen ko teg mooy ñàkk alal ndax nit ki bu tollee ci di lijjanti fu mu dëkk ak lijjanti lu mu dundee kooku dadul am jotu taxaw fenn di fa étudier ay masala bay am xam-xam ka nga xam nag weesu na ko bu yàgg ba am lu mu jàpp kooku mën naa saytuwaale mbooloo mën naa saytu mbooloo moo xam ni da leen di puus bañ jàll ndax am na benn borom alal bu faatu woon bu yàggul ba ñuy lim lam def wax nañ ni junniy nit junniy xale yoo xam ni moo leen dugal ñu tàmbali certificat ba am doctorat am na ko ci lu baax junniy nit tabax na nangami eh, ñetti téeméeri école tabax na wut na ci ay handicapé lu mat ñetti téeméeri nit ñoo xamante ni léegi dañ waxuma sax ay handicapé ñoo xam ne dañ leen a foree woon ci mbedd mi mu jëlee leen wuti leen ay kër saytu leen di leen dundal jàngal leen ba ñu qualifié loolu wut na ci lu mat ñetti téeméeri nit kon alal ci fekkee saytu nañ ko ni ko diine bëggee ci li gën a mën a defar ab société la bokk ci li gën ci àdduna la bokk waaye nag bu fekkee ni nag léegi dañ ko saytuwut ni mu ko waxee daanaka ci li yàq la bokk kon euh, fexe ba dundal ruuk société waaye bala moo mën a dund it ba see nit ki daa defaru ba noppi rek fi mu toll nii euh, li nu gën a sonal mooy kenn ku ne ci noonu da ngay daru ci ab côté di yëngutu ci dara di ci yëngutoo noo xam ni keneen di yëngutu ci leneen keneen di yëngutu ci leneen bu ngeen matoon ñetti nit képp takkatoo la ngeen di yëngut dana fulu ñeenti yoon waaye day mel ne yàlla dana natoo jaxasoo société mënuñu ko ndax la ko gën gën a waral mooy mën nga koo bëgg waaye koo ko àndal nga du gis ndax warkat yu bari lépp nag ba tey mi ngi delluwaat ci ñu war a gën a defar nit ñi ci wàllu ruu defar leen ci wàllu jikko ndax bu wàllu économie ñëwee mën a jàpp waaw ndax nii euh, nga xam ni kenn ku ne day beru rek di jéem euh, dem na ba ci daaree alxuraan yi maa ngi ko doon jàmbat ba ki dem di wax ne sëriñ bi ginnaaw bi mu sosee bi mu ñëwee ci dëkk bi sanc si ko daf ko sance woon alxuraan ak xam-xam ak tarbiya léegi dafa mel ni e, ñeenteelu tomb bi nga xam ne mooy murit bi ñëw rek lu doon muritu takkoo nga xam ne day jébbalu rek dem bu amee addiya ñëw jox ko delluwaat dafa mujj mu mel ni dañoo toll ci jamono boo xam ni murit boobu képp mooy dox waaye ñii doxul léegi nag ma bëggoon ñu saytuwaale lépp di saytuwaale daara yi di saytuwaale daare alxuraan ñu saytuwaale xam-xam bi saytuwaale tarbiya gi doog a saytu nag murid yi nga xamante ne dañoo jóge ca mbedd ma dajal seen addiya di ko doxe wala daal bu ragal naa ne suñu borom daal defal tawfiix gën noo defal ndimbal yal na yàlla defal dégg ak topp ak jariñ di lu baax ndax euh, xat-xati weer yi dafa bari ba bari na waxtaan yu ñuy wax yoo xam nañ ko war a waajal duñ ko mën a waajale noonu waaye nag yàlla mu defal ñu di ñaan kilifa yi nekk ci suñu kanam ba noppi